liggéey bu am solo bi nga xam ne euh, commission organisation di benn commission bu bokk ci comité d'organisation bu màggal Touba di ci am liggéey bu am solo bu muy def ci biir màggal gi commission boobu nag ni ma ko waxee commission bu yaatu la di liggéey liggéey bu yaatu ndax banqaas la ci comité d'organisation bi ni ci yeneen commission yi bokke am itam ci biiram ay sous commission yoo xam ne maanaam ay yeneen pàcc pàcc ci biir yoo xam ne ñoom itam dañ leen a dénk ay liggéey ñoo ñu ñoo lëkkaloo doon commission organisation am na sous commission bu ñuy wax accueil et hébergement maanaam commission boo xam ne mooy teeru ak di dalal gan ñi rawatina gan yi kilifay diine yi nga xam ne ñoo bokk ci tarixa yi nekk ci biir réew mi commis sous commission boobu ñu ngi ko dénk daayira Muxaddamatul Xidma bi nekk ci jumaay am beneen sous commission boo xam ne euh, restauration lañ leen di wooye maanaam ñoom ñooy berndeel gan ñooñu nga xam ne ñooy gani kilifay diine yi di leen toppatoo ci xeeti bernde bu mu mën a doon am beneen sous commission boo xam ne moom ñu ngi koy wooye hébergement maanaam bu buñ teeroo gan ñi ba dal leen ba noppi ñoom nag ñooy nekk ci biir néegi di leen toppatoo ci seen dal yiñ nekk ma profité waxaale ne dal yooyu yi ci gën a mag mooy kër sëñ Touba gii ci Touba mosquée dend ak jumaa ji ak geneen kër sëñ Touba gi nga xam ne moo nekk Daarul Mannaan am nañ yeneen site yoo xamante ni tam site la yoo xam ne barabu dalukaay gan la waaye yooyu dañ koy réserver en u bu fekkee am na euh, yeneen gan ñoo xam ne war nañ leen a yokk ci dal yooyu am beneen sous commission boo xam ne ci biir commission bi ba tey ñoom ñu ngi leen di wooyee sous commission intendance maanaam bagage yi nga xamante ni moom la ñuy sous commission bi di jëfandikoo ñoom ñoo koy saytu moo xam lu jëm ci wàllu ñam yi la moo xam lu jëm ci wàllu euh, bagage matériel service yi bu ma ñam yi ginaar yi ginaar yi xar yi euh, boisson yi fruits yi ndox yi ak lépp lu jëm ci wàllu ndékki yi nga xam ne moom la ñuy terale gan ñi su commission intendance boobu lañ koy jox euh, moom moo koy séddale ci barab yi mu war a dem waañ yi nga xamante ni moom mooy waañ yi nga xam ne fi lañuy ñuy waajale ñam yi dafa war a dem ci ginaar dafa war a dem ci ay xar dafa war a dem ci ay jën lafa war a dem ci jumtukaay lépp moom ñoom ñoo ko fay yóbbu ñoom waa intendance googu commission yooyu nag yooyu nag ñu ngi ko dénk daayira wilaya ñoom ñoo féete ci restauration bi ak intendance bi ak wàllu hébergement bi ni ki nga xam ne accueil bi ak e, yooyu lañ dénk mu xaddamatul xidma am beneen sous commission boo xamante ni sécurité lañ koy wax e, sous commission boobu itam bu am solo la ndax xam nga ne gan ñi ku leen dalal ci ay barab war naa sàmm seen kaaraange diirub lu ñu fi nekk diirub màggal gi yëpp sous commission boobu mooy euh, sàmm kaaraangeel gan ñooñu euh, ci bunt yi euh, accès bi ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoo fiy liggéey am na ay badge yoo xamante ni ñoom la ñuy yor moom la leen jagleel muy badge yi nga xam ne moom la comité d'organisation defar te mu mel nii ku ko takk boo ñëwee ci bunt bi ñu xam ne ci yow ci ñuy liggéey nga bokk bu dee gan ñit wutal nañ leen ay carte d'accès yoo xam ne mooy wone ne ñoom ci kër gi lañ dal am nañ sañ-sañu dugg bu dul ñooñu nag ku fi bëgg a dugg danañ gëstu saytu laaj ba xam lan lan ngay wut ci kër gi bu dee journaliste bu war a def interview yor nañ bat si presse bu dee keneen koo xamante ni gan lay seet danañ woote ci chambre boobu ne gan sàngamkat am na ku koy seet ci biti identifier ko ku tudd diw bu fekkee ne ne moom lay seet dañ ko accompagner ba yóbbu ko ci gan gi bu dul loolu dañuy bëgg kër gi am sécurité bu doy boo xam ne gan ñi kenn du Euh, kenn du leen xatal waaye kenn du leen bundu xataal danañ fi nekk ci seen jàmm ba màggal gi jeex. am na beneen sous commission boo xamante ni moom itam ñu ngi koy wax sous commission euh, euh, santé santé hygiène moom itam ndax xam nga ne. waajal màggal gi toppatoo ay ñam ci waañ yi loolu dafa laaj hygiène wàllu ceet dafa laaj itam ñu taxaw leen ci wàllu wér-gu-yaram ndax commission bi li ko composé ci ay membre jege na juróomi téeméeri membre ñuy liggéey dam tàmbalee ko ci 15 safar ba 20 safar ñooñu nag fu ñu nekk war nañ leen di taxaw ci wàllu wér gi yaram ba nga xamante ni ku ci am jafe-jafe ci wàllu wér gi yaram ñu man laa taxaw rawatina nag diggante daaw ak ren ñaari màggal yi màggalu 2020 ak 2021 dafa nekk ci contexte bu xaw a difficile muy euh, contexte su mbas mi ñu koy wax Covid 19. tax na itam ñu bëgg war a bàyyi xel bu baax a baax cet gi bàyyi xel itam wér yaram gi moo tax sous commission boobu moom itam. am liggéey bu am ama am solo boo xamante ni da koy liggéey kon nga xam ne daal su commission yooyu ñoo composé commission d'organisation commission accueil nag bi nga xamante ni mooy teeru gan ñi ak di leen dalal euh, am na rôle bu am solo boo xam ne am na ko ci te moom la Muxaddamatul Xidma di gérer euh, su commission boobu ñoom ñi ngi tàmbalee ci bu màggal gi desee weer danañ dem ci mbooleem fu gan war a dem ñu dem fa xool saytu dal yooyu xool lu fa yàqu lu ñu war a defaraat ñu réclamer ko wax ko kii ñi ñi ko war a toppatoo defar ko bañ defar ko loolu yaakaar naa ne def nañ ko ba site yu bëree bëri fii ma nekk nii ma wax yow rek travaux yi mi ngi continuer ci kër Sëñ Tuubaa gi ci Daarul Manaan ci lépp lu aju ci wàllu froid muy climatiseur yi lu aju ci wàllu électricité muy wàllu courant bi lu aju ci wàllu euh, euh, menuiserie yi muy porte yi lu aju ci wàllu peinture muy ñi nga xam ne ñooy peinture euh, dar dal yi lépp loo xamante ni laaj na ko ci wàllu taxawaay loola def nañ ko bañ ci jógee itam xam nañ ne diggante daaw ak ren yëpp gis nañ ne ak mbas mi am na beneen méthode boo xamante ni doon nañ ko doxalee ci ndigalul sëriñ bi muy di envoyé ay correspondance maanaam ay lettres d'invitation ci tarixa yi xamal leen ne kat sëriñ bi moom mu ngi leen di yëgal màggal gi di ko bokk ak yéen waaye nag comme fi jamono toll nag tax na bu ñu sañoon délégation bi bu fekkee ndar naa ñëw mu yëglu te ñu bañ a weesu nangami nit loolu itam yónnee nañ ko ci mbooleem tarixa yi nga xam ne ñoo nekk senegal ba ñu ci baree bari jot nañ ko ba joxe seen réponse yamuñu ci joxe seen tontu sax wane na dinañ ñëw waaye wax nañ ni ñuy ñëwee am na ci ñooñ sax wax nañu tur yi ñooy ñoo war a ñëw ci délégation boobu loolu nag dana permettre sous commission bi mu mën a def ab liggéeyam maanaam planifier def ay réservation xool dal bu nekk ña fa war a dem tarixa yi fa war a dem chambre yi ñu war a dem ni leen di répartir ni leen di waajalee defar ay fichiers yi nga xamante ni ku tarixe bu ci nekk bis ba nga war a ñëw yëgle nga ko ñay ñëw wax nga ko nombre ba xam nañ ko danañ ko mën a waajal ba bu ñu ñëwee rek incha allah liggéey bi day gën a yomb. am na itam nag su commission boo xamante ne sous commission communication la ndax lu mel nii du mën a ñàkk communication di wax ak nit ñi di jokkoo ak ñoom ak it nit ñi di xam li ñuy def comité bi di xam commission organisation lan mooy liggéeyam loolu itam ñu koy yéegal ba ci commission bi nga xam ne mooy commission communication ci comité bi sous commission boobu itam Muxaddamatul Xidma ak wilaya ànd ko muy MK TV ak wilaya ñoom itam ñoom ñu ànd seen communication boobu ba lépp lu mën a xew ci biir commission bi ci avant màggal pendant màggal après màggal dara du leen ci ump li ko tàmbalee ci réunion préparation yi nga xam ne doon nañ ko def ba ci réunion d'évaluation bi nga xam ne moom la ñuy xaymaa nag liggéeyub màggal gi dara du leen ci ump kon danañ dem ci dal yi xool gan ñi toppatoo leen commission d'organisation taxawaay boobu la am am beneen pàcc boo xam ne nag moom lañ dénk sous commission euh, commission d'organisation muy sous commission cérémonie officielle cérémonie officielle da doon loo xamante ni itam lu am solo la ci màggal gi ndax mooy euh, waxtaan bi nga xam ne moom la sëriñ bi di waxtaan ak gan ñi nga xam ne ñëw nañ ci màggal gi mooy gani kilifa diine yi ñi mu bokkal réew mi ay bokki boppam ak ñi nga xamante ni ñooy ñooy waa nguur gi loolu nag gis nañ ne daaw ak ren am na ak coppiku gu ci am ndax dañ koo defee ci façon boo xam ne sëñ bi rek mooy génn ak ñenn ci nit ñu néew euh, ak kenn ndaw li nga xam ne moom la fi nguur gi yabal mu toog sant bokki boppam sant ñi mu bokkal diine ci réew mi sant itam nguur gi nga xamante ni taxawaay yi mu def ci màggal gi loolu itam jot nañ ci euh, ndigal ci ne niñ ko defee woon daaw lañ koy defee ren du doon cérémonie boo xamante ni bu public lay doon waaye bu ko doonoon organisation ñoo koy organiser ñooy organiser cérémonie officielle bi. conférence yi nga xamante ni ay activité la tamit am ci kër gi activité bu am ci kër gi itam commission d'organisation moom moo koy organiser kon daal xam naa ci tënk. lii mooy euh, li nga xam ne mooy liggéeyu commission d'organisation ci waajtaay yi lañ toll nii nag euh, ni ma ko waxee waajal nañ dal yi euh, waajal nañ itam bernde yi waañ yi itam pare na waañ yi nga xamante ni moom la ñuy waajale bernde yooyu pour lu jëm ci gan yi yooyu yëpp pare na jumtukaay yi ñu koy defee itam yu ci bare bare disponible na xam naa incha allah biir màggal gi itam ni liggéey bi doxee. dinañ ci dellusiwaat ak yéen en image ngeen gis ko ba lii ñu fi wax yëpp ngeen mën cee teg seen bët kon jërë ngeen jëf ba ba ñu demaat ba ci biir màggal gi incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sabaaxiya fi ixdaami xayril wara badaa wa fi kulli shahrin zaydu ribxi wa fi safar